30 décembre 2019, mesdames et messieurs, heureux semaine, la dernière, la 52e d'ailleurs de l'année 2019 qui s'achève. Euh, ça a été un plaisir pour nous de vous servir et nous allons continuer à vous servir. C'est en tout cas un sacerdoce, une passion d'être là tous les midis au moins 90 minutes en votre Merci de votre euh, fidélité. Comme tous les midis, nous recevons d'éminentes personnalités pour parler de problématiques essentielles. Ce midi, nous recevons M. Kanbaï, le conseiller spécial à la présidence de la République et puis coordinateur euh, donc, de Benoît Bokyakar du côté de Louga. C'est Kadia qui m'accompagne pour ce midi. Monsieur Mbaye, vous allez bien euh, l'actualité chez vous Euh, le président prépare euh, son allocution. Demain, il fera face aux Sénégalais. Je voudrais d'abord, avant de répondre à cette question, euh, peut-être te remercier, mon cher ami, de m'avoir invité sur ce plateau de cette excellente émission Les grandes heures de la 2 TV, animée par un excellent journaliste. Euh, et je suis fier de vous voir à ce niveau, à ce niveau de responsabilité. vous avoir connu, peut-être vous avoir suivi à distance, mais certainement pour avoir vu aussi que vous avez gravi les échelons de manière exceptionnelle, avec un parcours exceptionnel. Merci. Donc je voudrais vous remercier pour cela et vous dire de ce Saint-Louisien d'origine qui a vécu depuis 20 ans dans une belle ville qui s'appelle Louga et qui a été adoptée par les populations. Je remercie également Madame Fall. Donc c'est toujours un plaisir euh, de venir dans cette, dans cette, dans cette boîte. Euh, je voudrais peut-être faire cette émission en Wolof pour toucher le maximum de Sénégalais. Parce que... on, on y viendra oui, juste après l'édition de Kanya. Très bien. Maintenant, par rapport à, au discours du président de la République, c'est un discours euh, euh, d'usage. Le président s'adresse euh, à ses compatriotes euh, chaque 30 décembre. Euh, et je crois que euh, ce discours sera à la hauteur des attentes des Sénégalais. Hmm. Parce que depuis sept ans, nous sommes dans une bonne dynamique, dynamique de construction nationale. Et les réalisations du président de la République ont été sanctionnées positivement le 24 février 2019. Donc nous sommes dans de continuité de ce a été fait depuis sept ans et j'ose espérer que l'année 2020 qui pointe déjà à verra la concrétisation de tous les projets et programmes président de la bénéfice exclusif des populations du Sénégal. Le fameux 5, 3, euh, euh, vision du président Macky Sall à l'horizon 2035. Tout de suite, l'actualité du jour. Euh, Madame Kadassi, vous allez bien Je vais bien, merci. Donc je vous salue et je salue notre Donc c'est parti bulletin d'information des grandes heures que nous allons démarrer avec l'année 2019 qui tire à sa fin. Elle le président de la République dans les rues de Dakar. Les avis sont partagés sur la les uns pensent, disent n'avoir pas senti cette sociale, le contraire. C'est un reportage signé Kadior L'année 2019, décrétée année sociale par le président de la République Macky Sall, tire à sa fin. Cependant, cette année a-t-elle été sociale Les Sénégalais ont-ils réellement senti ce côté social dans leur quotidien durant ces 12 mois Tentative de réponse. Non, je ne l'ai pas senti. Non, parce que les pères de famille sont fatigués. Mais l'année sociale, ça n'existe pas au Sénégal. Les gens souffrent toujours. Je, je qu'il y a le social dans le pays. Ce serait contradictoire, selon ce monsieur, de considérer l'année 2019 comme année sociale dans la mesure où les populations l'ont vécu dans une précarité totale. On vit dans la précarité. La, le panier ménagère est difficile. L'emploi, il Les jeunes sont. L'éducation ne marche pas. La santé aussi. Donc, euh, il euh, n'y a pas d'année sociale au Sénégal. Les gens souffrent toujours. Ce tailleur, par contre, relativise et évoque la problématique liée à la cherté du prix du loyer à Dakar. J'étais dans les villages arriérés. J'ai trouvé que même le les, les, villages arriérés, il y a du social, sans compter ici à Dakar. Ce qui est de notre difficulté, c'est les locations qui sont trop, trop, trop, trop chères. Si ailleurs on a eu du mal à joindre les deux bouts, tel n'est pas le cas chez cette dame qui, visiblement, a bien senti le côté social de l'année 2019. Nous assurons les trois repas quotidiens et nous rendons grâce à Dieu. Peut-être il y a quelques problèmes dans le secteur ah, privé, mais ça va pour le reste. mais ñi sas sant yàlla. Le chef de l'État Macky Sall a voulu que cette année 2019 soit sociale. A-t-il obtenu gain de cause ou pas? La réponse à cette question varie en fonction des foyers sénégalais. Toutefois, la hausse du prix de l'électricité annoncée en cette fin de l'année risque de saper considérablement cette dynamique sociale tant prônée Kadior Sissé, parlons à présent de ces accidents de la route qui sont filmés. Les Sénégalais sont-ils devenus indifférents Pour certains, l'indiscipline et l'ignorance sont la cause de ce comportement. si ces Sénégalais rencontrés soutiennent qu'il faut que les gens revoient leur comportement, surtout dans un pays comme le Sénégal. C'est un reportage de Babacar Tambedou et de Bédibou. S'agit-il d'un acte d'indiscipline ou encore de l'ignorance En tout Filmer une personne alors qu'il a besoin d'aide, un phénomène qui prend des proportions inquiétantes de nos jours. Une situation déplorée par les Sénégalais que nous avons rencontrés. Nous tous, on déplore de, de, de ça. On a vu actuellement les Sénégalais, on a vu certains accidents. Moi, je, je, moi, il y avait ma soeur qui était, euh, qui était tombée dans une carapette. Euh, il y, avait, il y avait des gens qui étaient là, et d'appeler là à lui regarder. Il a regardé finalement, a, il, elle a duré tellement là Mais finalement, les sapeurs sont venus. en danger. Au lieu de secourir la personne en danger, on se permet de la filmer. Et pire encore, on se permet de mettre la vidéo en ligne parce que tout simplement, un médium prime ses téléspectateurs qui lui envoient des vidéos. Je me demande si réellement on est au Sénégal. Je pense qu'au lieu de filmer, on peut prendre ce temps pour secourir la personne. Comme ça, au moins, on fera les premiers soins en attendant les sapeurs-pompiers. Pourtant, le fait de filmer une personne en danger est réprimé par la loi. Il s'agit du délit de non-assistance à une personne en danger, prévu dans l'article 49, alinéa 2 du Code pénal. Mais beaucoup de Sénégalais l'ignorent. Il faut euh, de sensibilisation. que la population cherche que une personne en danger, on doit le secourir rapidement, le plus rapidement possible. C'est ça qui est l'essentiel. Malgré l'ignorance, il faut se mettre à la place de cette personne qui est en danger pour comprendre cette situation. Imaginez un citoyen qui est sur le point de mourir à cause d'un accident et vous prenez votre portable pour filmer. C'est grave. Nous devons vraiment revoir notre comportement. Nous ne sommes pas à l'étranger, mais au Sénégal. Et qui dit Sénégal parle du pays de l'entraide. Quoi qu'il en soit, toute personne accusée du délit de non-assistance encourt une peine de 3 mois à 5 ans de prison et d'une amende allant de 25 000 à un million de francs CFA. Et comme dit l'adage, nul n'est censé ignorer la loi. 30 ans après sa disparition, le centre Bob rend hommage à son fondateur, Ahmadou Malik Gaye, qui faisait partie des rares personnalités qui croyaient à l'indépendance de l'Afrique pendant sa colonisation. Focus sur son parcours avec Thérèse Sambo et Abdoulaye Ndiaye. Il faisait partie des rares personnalités qui croyaient à l'indépendance de l'Afrique pendant la colonisation. À l'époque, Ahmadou Malik Gaye n'était ni ministre ni député, mais dans sa manière de faire, on pouvait l'appeler un politique et non un politicien. 30 ans après sa disparition, le centre BOP lui rend hommage. Euh, celui-ci porte désormais le titre de son fondateur. Au niveau du l'USE, on a un raccord peut-être en, en, ans. il a pu forger des jeunes, garçons et filles. Il a pu mettre en place une équipe et c'est avec ça que nous travaillons jusqu'à maintenant, 30 ans après. C'est ça l'avenir de l'Afrique, c'est ça l'avenir de notre pays. Transmettre le message du président Abdou Diouf, qui était le frère cadet, l'ami Feu Amadou Malik était son référent, il a inspiré bon nombre d'entre nous qui sont devenus de bons patriotes. a été pour nous, anciens de l'enfant, un encadreur et un modèle. Ahmadou Malik un homme sociable qui n'hésitait pas à prêter main forte aux démunis. a été PDG de la SICA pendant 5 ans. Pendant toute cette période, euh, il, n'a pas pris de maison à la SICAP. Je me rappelle, ma mère lui a suggéré à un moment donné d'acheter en bonne et due forme une maison pour chacun de ses enfants. Il a dit non. parce qu'il y a d'autres qui sont plus nécessiteux que nous. En effet, à midi, quand il arrive à la pause, il reçoit. Il écoute chacun attentivement. Il a réglé beaucoup de cas des personnes anonymes. Ahmadou Malick Gaye, 1931-1989, fait partie de la première élite intellectuelle du Sénégal. Après ses études, il n'a pas servi dans l'administration française. Homme de conviction, il croyait à l'indépendance. Parlons à présent de la célébration des 70 ans d'existence de Grand Dakar. Cet événement a pour but, de promouvoir le cadre de vie, l'éducation, le sport, la sécurité ainsi que la culture. C'est aussi l'occasion de susciter un les grands projets de la commune. Nous vous proposons, les propos maire de Grand Dakar, Jean-Baptiste Diouf. Il est ici micro de Mohamed Ba. delà de l'émerveillement et du caractère festif de l'événement, il s'agira surtout de créer un trait d'union entre toutes les composantes de la localité, telles que les acteurs culturels, les historiens, les hommes politiques, les chercheurs, les promoteurs, les hommes de médias, les pouvoirs publics, les entreprises et au-delà les villes jumelles et les partenaires au développement pour capitaliser toutes les opportunités et tendre vers des perspectives heureuses de développement dans l'unité, la concorde et la cohésion sociale. Pour ce faire, les festivités marquant la célébration des 70 ans de Grand Dakar seront ponctués par une série d'activités aussi diverses que variées, à travers lesquelles nous tenterons d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, à savoir revaloriser l'identité de la commune de grande Dakar, créer les conditions d'épanouissement des populations, renforcer le sentiment d'appartenance à un même terroir pour une citoyenneté plus responsable, promouvoir le cadre de vie, l'éducation, la santé, le sport, la culture et la sécurité, susciter un partenariat public-privé pour développer les grands projets de Grand Dakar. Voilà, c'est cet élément qui met, en, qui met un terme à ce flash d'information. L'information qui revient à 13h en Wolof avec Rawa Mamadou Konaté. Le Wolof, justement, nous l'abordons pour euh, cette partie. Euh, Kadia ñu lay gërëm di la sant tey mbokk yi ñu nekk ak ki nga xam ni moom mooy euh, Kane Mbaye conseiller spécial à la présidence de la République nekk coordonnateur Benno Bokk Yaakaar fële ca Louga. alors euh, monsieur mbay euh, fi ñu toll nii sénégalais ñi ngi xaar kii di président de la république. naka ëllëg pour discours bi muy def chaque 31 décembre. Mhm. mais euh, coow li si Sénégal li ko gën a lëmbe mooy mbirum courant bi yokk nañ ko yokkuñu ku nekk brandir facture am dama am facture 400000 700000 ñu xalaat nii. li nga xam ne mooy 2018 da ngeen ko defoon année sociale. Mhm. pour que ngeen mën a dem campagne nit ñi fa tabaat leen mais bi ñu si génnee ngeen appliqué nag la réalité des prix mu war a métti trop ci ñi nga xam ni moom mooy baadoolo yi est-ce que euh, mbirum courant boobu parce que président fan yi ñu génn sax jël na benn décision ni dañ koy dàq ba fin mars euh, tey Sénégalais yi lan la ñu war a jàpp courant bi yokku na yokkuwul wala dañu réajuster tuuti. merci beaucoup Ben Makhtar euh, je voudrais même réagir par rapport à la de la République. Hmm. parce que xam nañ ne depuis le Sénégal s'est inscrit dans une dynamique euh, de correction de disparités. PAP 1 PAP 1 bu plan Sénégal émergent presque 316 000 familles sénégalaises ont pu bénéficier des bourses de sécurité familiale. Euh, toujours ci filets sociaux yi mën nañ ci boole couverture maladie universelle tey jii sénégalais yi ñu ngi mieux qu'avant mën nañ dugg ci carte d'égalité des chances cinquante mille cartes d'égalité des chances pour les personnes à mobilité réduite moo ñu tuddee ñu am laago sans oublier maintenant une maîtrise de l'inflation depuis sept les prix n'ont pas bougé au Sénégal depuis sept ans ça c'est une prouesse du président de la République te sénégal yi sentir nañ ko ci seen ay poche maanaam tey jii booy xool euh, amul benn variation à la hausse sur les prix des denrées de grande consommation boo jëlee sucre depuis 2012 le sucre est resté à l'État 600 francs la jar avant 2012 le kilo de sucre coûtait 700 francs boo joolee jëlee ceeb nga jël diwlin nga jël meew les prix son resté à l'État yaakaar naa ni kooku ay efforts yu rëy la yu président de la République def pour askan bi parce que bu ñu fàtte bu ñu bëggee bu ñu bëggee apprécier les bons qualitatifs que nous avons réalisé en sept ans ou huit ans de gestion publique, il va falloir qu'on parte d'une année de référence qui est l'année 2011. C'est important daal ci dellusi parce que Sénégal boo bëggee xam Macky Sall yéen jéego la def il faut ñu jóge 2011 moo doon année bi gën a jafe ci Sénégal ci fànn bu nekk mën naa dugg ci transition ma dugg ci électricité 2011 Sénégal mi ngi nekkoon ci goutte parce que courant amul woon bu ngeen seetloo buntu atelier boo gis. di nga fa fekk benn groupe électrogène les entreprises étaient paralysées faute d'avoir de l'énergie euh, xuy kamaj gi metti loolu sénégalais yi sonn le 27 juin 2011 on se rappelle encore des émeutes d'électricité où des populations en furie ont saccagé et brûlé les agences de la Sénélec dans Dakar et dans la banlieue dakaroise donc yooyu ce sont des réalités tangible yi xam Sénégalais yi fekk nañ ko gis nañ ko président Macky Sall deful ñetti weer régler le problème de l'électricité au Sénégal xuy kam ak ceex je rappelle qu'en 2011 nous étions à 900 heures de coupure c'est-à-dire 39 jours dans l'année en 2011 aujourd'hui nous sommes à moins de 24 heures de coupure c'est une prouesse moo tax ñii di wër di wax activistes yi di wër di wax di génne ay factures dañu xam Sénégal fan la jóge 2011 ak fan la ñëw tëj ji 2019 ci wàllu électricité te domaine bu ñu dugg mën naa la génneel et je tantôt wax naa ne Macky Sall c' per le de la révolution sénégalaise naa dellu si wax lu tax ma ni c' est le père de la révolution sénégalaise mais li ma bëgg wax mooy ci wàllu électricité dañu jóge ci période bu doy waar bu metti ñetti weer rek Sénégal am accalmie tey jii dañu doubler suñu capacité de production de la Sénélec mi ngi woon ci 550 mégawatts tey mi ngi ci presque 1200 mégawatts ci juróom-ñaari at Sénégalais yi noppalu nañu ak coupure courant nit ñi ñu ngi am une électricité de qualité maintenant qu'est-ce qui s'est passé depuis 2012 état bi dafay subventionner le prix à l'électricité depuis 2012 ñu koy subventionné entre 2017 ak 2019 rek état def na 300 milliards ci subvention pour que prix électricité bi bañ a ci askan bi mais pendant ce temps subvention boobu moom la tuddee subvention universelle maanaam ñëpp ci jot borom barke yi directeur généraux yi ministres yi commerçants yu mag yi homme d'affaires yi ak enseignant bu ndaw ba nekk ca ngën saar nga xam ni xëy na benn lampe rek la am ak benn ventilateur mook borom alal bi ñoo bokk même niveau de subvention déjà loolu du équité état ne subvention bi diis na ci askan ci ci ci trésor public pendant ce temps ci cinq pour cent sénégal yi am électricité 42 pour cent rek mooy ñu am électricité nekk ci réew réew ci ci ci ci dëkk àll yi pour cent Sénégal yi nekk ci dëkk àll yi ay ruraux nga xam ne suñu ay mbokk nañu gënuñu leen ils ont les mêmes droits que nous ñooñu 42 pour cent donc maanaam téeméer boo jël ñeent fukk ñaari dong ñoo am courant. c'est une injustice ay nit ñi nga xam 1960 ba 2019 mas ñoo gis courant président ni léegi au lieu que parce que booy xool subvention bi mais c'est de l'impôt collecté sama impôt la ak impôt sama mbokk bi dëkk Badem Badem Badem sama benn mbokk bi dëkk Par Cissé ñooñu dañuy dañuy fay impôt ñu jël impôt bi subventionné électricité bi électricité boobu jëriñ borom borom barke bi tam moom du ci am dara te moom mënut a am électricité depuis 60 ans. loolu injustice la te man dinaa ko wax dafa am hypocrisie nationale depuis 1960. c'est-à-dire politique publique yëpp yi gën a am solo dañu orienté vers le développement des centres urbains c'est ça la vérité les les ruraux ont été les parents pauvres. réewu taax yi la ñu jox réewu taax yi la ñu jox alal ji la ñu jox doole ji loolu moom mos am président wax naa la président de la république c'est un correcteur d'injustice te dinaa dellu si ndax ma ne Macky Sall. c'est le père de la révolution sénégalaise parce que xam nga ma révolution sénégalaise mooy fekk ñu nekk ci suuf nga yëkk nga xëcc leen ñu dem ci kaw Macky Sall loolu def depuis 2012. lu tax tey jii mu ne nañ arrêté graduellement subvention te subvention bi booy xool sax arrêté wuñu lépp dañ ne 6 à 10 pour cent loolu la consommateur yi di fay. tout sax hausse réajustement tarifaire rek la maanaam te booy xool réajustement tarifaire boobu concerné wul. cinquante 54 pour cent des abonnés de la Sénélec soit parce que onze 000 abonnés yi nga xam ne ñi seen facture jógee zéro ba 15 mille yokk bi laal la te loolu il faut ñu wax ko Sénégalais pour ñu xam que ñi seen facture jugee zéro ba quinze mille facture bi la facture yokkum courant bi laalu leen ñooñu ils sont 611 000 près de cent mille abonnés de la Sénélec yokk bi ci ñaari weer yi matul sax 1200 francs ëpp na ko quand même. gis nañ fi ëpp ko ëpp ko gis naa ñëw foofu naa ci factures yooyu mm. beneen tranche bi presque cent matul cent cinquante mille abone seen facture eggul deux mille quatre cent francs ci deux mois ci yokk bi ci bimestre bi loolu mooy la vérité des chiffres maintenant facture yi ñu génnee. Mm. di ko ci réseaux sociaux yi. Mm. mais hausse bi intervenir gul ci benn facture. parce que hausse bi premier décembre la démarré nan la ñu mën a joxe facture weer bi te hausse premier décembre la démarré kon facture yooyu facture mois de septembre octobre novembre vingt neuf septembre ba vingt neuf octobre ba vingt neuf novembre mais période boobu période canicule la dafay tàng kon ku consommer courant moment boobu boo xoolee sa facture daaw di nga xam ni facture courant il faut il faut nga sentir que parce que moment boobu ñëpp dañuy taal ventilateur ventilateur ñu am euh, climatiseur taal ko ñu am frigo dañ ko day fay taal à plein régime kon moment boobu ñu yor facture yëpp nga gis leen ñu yor facture fii ci Sénégal di ko wane mooy facture moment canicule bi moment tàngoor bi mais facture yu bees yi mënagul intervenir léegi xëy na d'ici trois mois. peut être que officiellement peut être bi intervenir ci facture yi mais boo jëlee par exemple man sama cas appartement bi ma nekk. Mhm. journée bi yëpp pratiquement on jamais à la maison. sama jëkkër du fa nekk man du fa nekk donc benn matériel du tàkk. guddi ba guddi lañ fay nekk te li ñuy taal bu ñu yegsee carrément tëdd rek la def. donc xam nga ne bu ñu ñëwee non non amuñu climatiseur justement ay 20 000 wala du ko sax mat. ñu ñëw tey ñooñu ñu facture 70 voire 90 000 kon hausse bi dugg di dugal ay ay mbir ci biir. mais mais mais xam nga période bi ma la wax période tàngoor la. période tàngoor la mais kër xam nga période sedd booy xool kenn du taal kenn du taal ventilateur. c'est vrai les du ñu fonctionner période sedd. ñun ñëpp suñu kër yi loolu moo fa am mais bu tàngoor jotee da soxla ndox mu sedd. Mm. donc frigo yi du fay. da ngay soxla ventilateur du fay boo amee climatiseur du fay donc c'est normal que moment bii facture yi war a méngoo ak période boobu nga xam ni moom la ñu consommé woon courant bi ci fort canicule boobu te ren bi ngeen xool dafa tànk donc loolu rong la mais gëm naa ne hausse bi mënagul intervenir léegi parce que facture yi hausse bi le premier décembre la commencé kon gëm naa ne facture facture yi ñu war a jot ci hausse bi xëy na d'ici trois à quatre mois mais est-ce que est-ce que les activistes yi nga wax am nañu droit manifester euh, parce que itam si liberté d'expression la ñu nekk euh, tey ku nekk am nga droit wax li nga xalaat manifester à la limite euh, mais bu ñu demee ba gis nii en tout cas il aurait été bien que tey 31 décembre bu président def discours am que ñu bañ a am benn activiste. Mm. wala kenn koo xam ni que ni bokkul ak yéen camp koo xam ne dafa nekk si kaso bi. mais benn maxtaan. Euh, xam nga xam nga liberté de manifester c'est un droit constitutionnel mais il n'y a pas de liberté absolue amul toutes les libertés ont une limite objective xam nga mooy la liberté la lan mooy la limite de la liberté de manifester c'est l'exigence de préserver l'ordre public loolu mooy limite bi parce que mënuñu wax ne l'arrêté Ousmane Ngom qui interdit toute manifestation dans le périmètre du plateau yow nga ni noonu non damay euh, damay enfreindre la loi en manifestant jóge place de l'indépendance jëm palais présidentiel bi ngay egg à hauteur de la SGBS ay forces de sécurité arrêté la donc nous avons la, la vidéo était virale même sur les réseaux ils ont résisté ils ont refusé d'obtempérer forcé force deux fois le barrage de la police parce que les, les forces de l'ordre n'étaient pas nombreuses ñu egg au, au, au grue du palais mais ces gens-là ils ont la loi de manière systématique il faut sénégalais yi xam ne liberté de manifester dafa am limite amul benn liberté bu amul limite mais su liberté amul limite mais àdduna tukki su droit amul limite àdduna tukki te liberté de manifester limite am mooy ordre public te dañ ma jàngaloon li ma la loi c'est la condition de l'ordre kon activiste yooyu tere terewuñu manifestation Sénégal boo jëlee pourcentage de de marche autorisée tey ñu ngi plus de cinq pour cent de marche autorisée parce que moins de quinze pour cent de marche non autorisée moo bien que sax jógee nañ ci régime autorisation léegi ci régime information lañ mais le Sénégal c' est un pays de liberté. Mm. c' est un pays de démocratie ces libertés nous allons nous les avons conquis Sénégal kenn mënul dellu ginnaaw tey.

c'est pas normal réew aussi dañ ko war a dañ ko war a teg ci yoon il y a aujourd'hui des espaces aménagés pour ay nit ñi manifester am na fi chaque jour nga gis ñu jógee place de l'Obélisque dem dem rond-point RTS ah. Ah, alors mm, balaa ci dialogue national bi damay waxaat ci climat social bi nga xam ne moom lañ nemmeeku jamono ji Sénégal mm. euh, ñu ngi wax wàllum hausse du prix de l'électricité ñu ngi wax problème loyer bi ak euh, peut-être gafaka sénégalais yi nga xam ne ñu ngi sentir lu jëm ci ndóol gi bu baax a baax Abdoul Mbaye moom mu xam ne ni 2020 moo nar a gën a yées que 2019 que 2020 dina metti trop ci sénégalais yi yow tey peut-être boo bëggoon rassurer euh, sénégalais yi lan nga leen di wax par rapport à cela xam nga bala may tontu sax dinaa ñëw ci parce que ñun suñu réew ñun dañuy hériter ay valeurs à la fois des valeurs ancestrales et des valeurs religieuses. Ah. te valeurs yi dafa bokk am wóllëre am ngor dafa bokk suñu ay valeurs. Abdou Mbaye c' est le président Macky Sall qui l'a sorti de l'anonymat personne ne le connaissait avant li ñu ko doon dégg mooy xaalisu Abraham ci la ko doon dégg à part ça dégguñu amul benn fait moom. à la de la on a fait de lui Premier ministre. Une fonction stratégique dans la gouvernement, Premier ministre, pendant plusieurs mois. benn instant ki la joxoon bu nangoo parce que am na feneen fu bëgg yóbbu sa réewam mais nga am ngor nga toog mais sa làmmiñ boo ci génne lu ñaaw rek nga ci génnee ak lu bon loolu bokkul ci suñu ay valeurs sénégalaises. mais est-ce que du loolu la nemmeeku at itam est-ce que loolu la gis peut-être moom moo tax est-ce que parce que Macky moo ko génne de l'anonymat bu ñu bëggee reprendre say propos rek que war na gis lu mu Macky def lu yoonul rek mu mu noppi ci. kenn laaju ko kenn wax ko mu wax lépp lu mu gis ci mu nekkul mu nekk mu nekk mu nekkul yoon du ko wax. Mm-hmm. mais dafa am waxin. Mm-hmm. wax bu rafet. Mm-hmm. kaddu bu rafet ñu noonu la ñu yore Sénégal mun nga wax sa dëgg te doo nit ki doo ko wax lu ñaaw te doo ko te moom heure bu dóoree kàddoom da gis da bu mu am bu mu am ci président Macky te ki muy waxal masu ko tontu kon moom mos dégg président Macky Sall tontu ko kon kooku moom waxam dama ko wax fi may waxee nag. xam nga Sénégal dafa am fu mu jugee. lu ko fàtte wax naa léegi nii Macky mooy père de la révolution sénégalaise dafa am lu mu révolutionné xam nga dafa am ñaar ni xam ni ñoo nekk ci révolution wax naa ko léegi ampleur des réformes ak rapidité des changements. amul secteur boo jël Macky Sall fekk ko 40 yóbbu ko 80 fekk fa un fekk ko un yóbbu ko wax naa la courant bi fan la nekkoon 550 mégawatts en 2011 tey ñu ngi ci 1200 mégawatts en 2000 en 2019 mbayum ceeb bi fu mu nekkoon en 2011 ñu ngi woon ci 460 000 tonnes de riz padi tey ñu ngi ci 1 million 100 000 tonnes de riz padi en 2019 yokku naka de 115 cent en 5 rek parce que chiffre yi ma lay jox ni 2017 maa ngi déglu benn reportage Bounkiling waa ji ne ci benn village bu tudd Mañoore mun na ñun 1960 ba 2012 juróom-ñaari forage nañu amoon 2012 ba 2019 47 forage nañu am xam nga tey Sénégal booy wax ndox ci àll bi. bi wax yoon. parce que premier mandat président 4000 kilomètres de piste rurale defar nañ ko. 5000 équipements post récolte tey boo demee ci àll bi nit ñi soqatuñu ci seen ay loxo. boo jotuñu seen seen ay walatuñ ci seen ay wax xam nga soo koy wax ku dëkk ndakaaru nga xam ne am na commodité yëpp daf lay ree am naan mais loolu c'est insignifiant mais ñu ngi koy defal yaa ngi soq ñu ngi koy defal ñu nekk ci àll bi xam nañ ñu ngi defal population yi nga xam ne jigéen ñi nga xam ne dañ doon takk ay saret ay trente kilomètres di wuti ndox tey nga indi leen ay forage ñuy jël ndox di sang seen ay doom di wëgg seen ay jur mais sénégalais yooyu boo taxawee ni leen Macky Sall defaluñu dara duñu la gëm. ce que est-ce que. moo tax moo tax le 24 février dernier sénégalais wan que ni que dañuy renouveler suñu pacte de confiance xam nga Séné Macky Sall dafa réglé dafa réglé ñetti problème sénégalais Sénégal ñetti type sénégalais moo am. Hmm. mooy sénégalais bi dëkk ci taax yi sénégalais bi dëkk ci réewu àll yi. taaxu euh, dëkku àll yi ak sénégalais bi dëkk ci frontière yi booy xool ñun ñun sénégalais booy xool suñu occupation territoire Sénégal loolu ñett sénégalais yooyu ñoo fi am amul leneen bu dee ñu jëkk ci réewu taax yi Macky Sall dafa indi programme bu am solo ñu tuddee Promoville programme de modernisation des villes secondaires parce que xam nga dakaar ñëpp xam nañ Sénégal lu tubaab tuddee macrocéphalie la maanaam bopp bi moo rëy mooy Dakar mais yaram bi dafa ndaw bopp bi mënta supporter yaram bi président indi Promoville daan comme Dakar le toutes les activités économiques ñu concentré services sociaux de base yi ëpp solo Dakar nañ ko defee damay créer benn programme bu tudd programme de modernisation des villes secondaires dans une première phase treize villes secondaires laa koy jox ñu def fa assenissement def fa ay routes def fa def fa éclairage public boo ñëwee Louga tey na am nañu presque quatorze kilomètres de route goudronnée dans la ville am nañu cinq milliards d' assainissement réseau d'extension du, du réseau euh, euh, euh, un programme d'extension du réseau d'assainissement à Louga dans la ville am nañu éclairage public aujourd'hui les principales artères de la ville sont éclairées loolu ci Promovilles lañ ko amee programme bi deux cent soixante dix milliards la treize villes secondaires et que phase bii di ñëw dañuy étendre ce programme à toutes les villes du Sénégal loolu révolution la mas fi am beneen bi ci réew réew réewu àll yi ñëpp xam nañ naa ko léegi ba mais réew àll yi ci ginnaaw dañ nekk politique publique yëpp dañ ko orienté ci développement centre urbain loolu moo mooy la vérité président ni dama bëgg mu am équité territoriale maanaam ni nekkoon ci suuf il faut ñu yëkkati leen yóbbu leen ci kaw mu indi PUDC programme d'urgence et de développement communautaire 123 milliards première phase wax naa ko léegi plus de 4000 kilomètres de piste am na ay population yoo xam ne bu ñu mëseen a gis yoon dañu ñëw ci biir réew tax tey piste yi seen biir village la jaar pour am na ñi nga xam ne dañ def 30 kilomètres du ñu am ndox ñu indi leen ndox am na ñi nga xam ne masuñoo gis courant 1960 ba léegi nga gis borom kër bi nga xam ne am na 60 ans tey masta am courant ci la judd ci ci lëndëm ñu indi la courant kon ñooñu président dimbali na leen jëlee na leen ci suuf yóbbu na leen ci kaw beneen type de sénégalais bi fi laay jeexale mooy sénégalais bi nekk ci frontières yi mooy président indi PUMA programme d'urgence et de modernisation des axes et territoires frontaliers mais sénégalais yooyu da nga doon jugee Rosso Sénégal di jéggi dem Mauritanie pour jënd dem Mauritanie pour jàng dem Mauritanie pour faju c'était valable pour les populations riveraines du Mali de la Guinée-Bissau de la Gambie président indi piment presque trois cent milliards tey boo demee ci dëkk yooyu am nañu ndox am nañu courant am nañu ay école loolu mooy révolution xam nga réew boo koy mm. da fekk ñu nekk ci suuf te amuñu doole nga yëkkati leen ñu dem ci kaw loolu moo ñu indi ci électricité bi rek arrêté subvention bi graduellement progressivement fexe ba ñi nga xam ne amuñu courant ci réew àll yi te ñu ay sénégalais comme ñun ñu fexe ñu am courant loolu rek. ñu nuyu Cheikh kan bi ñu suivre depuis Abidjan énormément de réactions euh, sur les réseaux sociaux ñu nuyu waa Mbolo Birame ñoom tamit. ñu ñu foofu moom xaw ma fan la nekk Sénégal ñooy sab yëpp euh, mais ma bëggoon ñu dugg rapidement parce que nous reste pratiquement douze minutes euh, sur le dialogue social installé nañu euh, Famara Ibrahima Sagna nekk euh, semaine bii ñu génn ñu bari dañ jàpp ni que ni bu fekkee changé wu leen benn virgule comme ni ko président bi defee woon si les conclusions mën na renforcer la démocratie sénégalaise ñenn ñi jàpp ni dañ ko def pour mën a valider peut-être le retour du poste de premier ministre. Mm. dañ ko def pour mën a permettre l' amnistie de Karim de Khalifa Sall ak Aliou Sall ñeen jàpp ne dañ ko def peut-être pour ñu nii le président de la République mën na sax briguer un troisième mandat est-ce que dialogue boobu c' est juste pour renforcer la démocratie ou vu que toujours da ngeen di jël benn longueur d' avance sur vos concurrents ngeen mën leen jiitu si yu bare quitte sax à ce que ngeen rapprocher rapidement li nga xam ne moom mooy élection locale. Euh, mais mais mais xam nga xam nga dialogue boobu man li ma ci wax mooy d'abord dama koy saluer xam nga président de la République il a été brillamment réélu le 24 février 2019 il a été presque plébiscité 58 virgule 26 pour cent malgré tout cela sans triomphalisme mu jël parole le lendemain ne per aucun Sénégalais n'a perdu aucun Sénégalais n'a gagné c'est le Sénégal qui a gagné je tends la main à la classe politique je tends la main aux forces sociales et aux forces économiques loolu mënut nekk loolu mënut gën a rëy acte de grandeur et lañu wax waxante dëkk parce que gagné naa mënoon naa doxal man leen ñëw leen ñu réfléchir sur le destin bi Sénégal kon kooku il ñu dolloo ko njukkal ba pare li wane ne président am na bonne fois bi ñu waxee dialogue bi rek dañ ñu doon wax mais ban personalité moo war a jiite dialogue mu laaj opposition laaj ñëpp xel yëpp daje ci Famara Ibrahima Sagna mu nekk une personnalité indépendante am un parcours honorable président ni leen li ma ci dolli mooy toutes les conclusions obtenues consensuellement maanaam bu ñu waxtaanee ci biir dialogue bi ba juboo lañ ca juboo du ci tegg dara kon kay xel war na dal mais su ma gërëmee président de la république il faut ma gërëm classe politique sénégalaise parce que xam nga ñun nous avons la chance d'avoir une classe politique mature intelligente et responsable man science politique laa jàng te jàng naa ne euh, la plupart des conflits en Afrique et dans le monde ont pour origine la lutte pour le pouvoir maanaam wut nguur moo tax indi déraillante di ci bëri. le scénario est simple dañu organiser ay élections euh, euh, bu ñu ko organiser ba pare mu am contestation une faction jóge fële jël les am contre le pouvoir politique aujourd'hui au Sénégal bu ngeen seetloo a chaque fois bu ñu nekkee ci benn impasse la classe politique sénégalaise am na intelligence de créer des ressorts et des espaces pour se rencontre et parler ñuy fàttaliku crise politique bu 88 crise post-électorale bu 88 avec la commission cellulaire la commission Keba Mbaye bi nga xam ne moo indi le code électoral consensuel te code électoral boobu moo indi tey ji alternance démocratique 2000 indi alternance électorale 2012 autant pour moi donc il faut mu gërëm classe politique bi accepter de répondre à l'appel du président de la République gërëm les forces économiques et sociales qui ont accepté de réfléchir sur le destin du Sénégal parce que nag suñu ay différence ak suñu ay divergence c'est minime par rapport à l'intérêt supérieur de ce pays mm-hmm. madame Fall ñun Sénégal lañu am mën nañ bañ a juboo parce que xëy na yoon yi ñu yaakaar ne ci lañ jaar pour defar Sénégal mën na bu ñu wute mën na wute waaye au finish suñu yéene ñun ñëpp mooy Sénégal jëm kanam or bu ñu créer cet espace pour discuter pour échanger sur le destin du Sénégal te président wax na ko échange apaisé naxe amu ci waxtaan. juboo xool ci lan lañ mën a juboo nga xam ni njëriñu Sénégal la ci loolu rek le président woote. moo tax dialogue bi amul piège je suis désolé quand j'entends certains opposants dire que oui le dialogue est piégé c'est qu'ils n'ont rien compris. Aujourd'hui, toutes les garanties d'un dialogue franc, d'un dialogue apaisé, sont réunies dans le cadre de cet espace-là, de cette plateforme. te ñi fa nekk c'est des Sénégalais ñu nekk ci opposition bi nekk ci dialogue bi c'est des Sénégalais ñu nekk ci majorité bi nekk ci dialogue bi c'est des Sénégalais les forces sociales ak les forces économiques sont des Sénégalais donc am nañu yaakaar ne fu mu jëm jëm fenn fudul dëgëral démocratie parce que démocratie aussi c'est un système de contradiction mais en même temps c'est un système de convergence loolu mooy système démocratique donc il faut aussi ñun ñëpp ñu bàyyi suñu xel ci loolu. par rapport à composition comité bi man ci laa bëggoon ñëw on a un peu l'impression que les jeunes sont laissés en rade gisuñu fi kenn koo xam ne mën na taxaw représenter jeunesse bi wax ci li nga xam ne moom moo leen soxal peut-être loolu est-ce que nekkul peut-être benn faille ci ci dialogue bi. non man man gëmuma loolu parce que boo mm. xool ci ci sur sur sur les personnes qui composent le comité national mm. am mm. na le conseil national de la jeunesse oui, qui représente quand même euh, les jeunes de ce pays mm. donc euh, par conséquent gëmuma euh, les jeunes sont sont exclus du du comité national mm. euh, euh je voudrais qu'on parle de Louga euh, yaay coordinateur Benno Bokk Yaakaar foofu Louga nekk une zone à problème Moustapha Diop le ministre Euh, Mamour Diallo euh, Mbéri Sila euh, donc nekk na véritablement daal zone bu compliqué complexe Aminata Mbengue Ndiaye léegi ñu jël ko def ko présidente HCCT. Mm. nan ngeen di def ba mën a déggoo ci benn kàddu ni kii mooy nekk suñu candidat parce que nag coalition ngeen nekk mais kenn ku nekk aussi bëgg na ay mbiru boppam. waaw benn damay rectifier du ma coordonnateur benn bokk yaakaar je suis le de la convergence des cadres républicains. Hein? Donc je suis un membre de l'Alliance pour la République, responsable de l'Alliance pour la République dans la commune. Euh, xam nga xam nga xam nga politique politique euh, système concurrentiel la maanaam euh, les ambitions sont normales en politique ñu ngi jëm ci élection locale euh, la dette n'a pas encore retenue elle sera certainement discutée dans le cadre de la commission politique du dialogue national mais gëm naa ne euh, ambition lu normal la ci homme politique ku nekk am nga droit am ambition. Ah. mais ñun nous sommes dans le cadre d'une coalition qui s'appelle la coalition Benno Bokk Yaakaar la coalition de la majorité présidentielle. donc euh, nous attendons que les élections soient fixées la date des élections soit fixée et que certainement nous attendrons également les instructions du président de notre coalition par rapport à cette mais euh, ambition yi moom c'est normal benn ambition daal moo hmm. li ko Chateaubriand waxee l'ambition dont on n'a pas le talent ça c'est un crime. Ah. mais ambition servir sa réew ba pare nga am compétence politique yi compétence managériale yi pour jiite sa réew wala jiite sa dëkk am na solo ba pare euh, Baye Makhtar euh, gis nga collectivité territoriale yi yàgg naa ko wax enjeux yi ce ne sont pas des enjeux politiciens au moment où on parle de la territorialisation des politiques publiques mmh. les enjeux sont des enjeux de développement il faut ñu gën a bàyyi xel ci bu ñuy fal maire wala bu ñuy fal président conseil départemental ñuy bàyyi xel loolu ñu jël ñu gën a compétent parmi d'entre nous ñu dénk leen collectivité territoriale yi prix mel bi déjà le 19 décembre wane na ko donc loolu initiative euh, leadership locale mais mais question bi nga xam ne que dañ ko romb ci biir débat bi mm. mooy la guerre à l'APR tey euh, dóorante bi kenn ku si nekk raggante ni gi moom euh, amu fa euh, dafa mel na yéen a yéen a créé yéen a seen propre opposition est-ce que bu fekkente ni que ni li ngeen li ngeen jàpp muy vision président Macky Sall baax na mais yéen seen biir mënu leen déggoo qu'est-ce que le président vous doit finalement xam nga xam nga man je ne peux que regretter cette image nauséabonde que nous renvoyons à l'opinion mmh. parce que nag man li ma ci gën leen rek la c'est que nous sommes en train de manière insidieuse de modifier la perception positive que les Sénégalais on du président Macky parce que Macky Sall dans l'imaginaire collectif nit ñi dañ ko jàppee comme sénégalais bu courtois nit ku am yar ku am teggin du wax lu ñaaw perception boobu lay renvoyer à l'opinion bu ñu gisee ñun su suñu biir ñuy waxante lu bon lu saagante di menacer di def chantage loolu lu may lu la te ñooñu di ko def pour la plupart ils sont pas les plus méritants que les milliers de militants anonymes qui sont au Sénégal et dans la diaspora qui ont soutenu le président de la République et qui légitimement jusqu'à présent ils attendent le retour de leur investissement j'en connais énormément les gens yi nga xam ci ay saret lañ doon jël di def ay trente kilomètres di campagne en 2012 sama xel tey mi ngi dem ci ku mel na Alaaji Ba ci Guet sama xel mi ngi dem ci ku mel ne Demba Ka ci Kër Momar Sarr sama xel mi ngi dem ci Jibi Jaw ca na sama xel mi ngi dem ci ku mel ne Magay Thiam wala Serigne Gueye saar ci Ngën saar sama xel mi ngi dem ci ku toll na ku tudd Mor Dieng ci Sàkkal sama xel mi ngi dem ci ay Modou Niang ca Mbéjéen ay Dame Damare ñoom Pape Gueye ca Kell Gueye xam nga tax may wax Sénégalais yooyu je parle que des ruraux parce que ñooñu dama dama dama fekk li ñu met li ñu met ñu dat ca mu metti si 2012 boobu yombul woon ñii di wax tey jii nga xam ne ils ont bénéficié de tous les privilèges depuis sept ans ils sont pas plus méritants que ces milliers de militants mm. anonymes tey nañu gën a ànd ak président ci yar ci teggin doo leen dégg ñu wax lu ñaaw doo leen dégg ñu def lu ñaaw su ma duggee même commune Louga bari na fa ñu nga xam ne ay jàmbaar nañu woon Khalifa Dia ay Ngoñ Diassé ay Sidi Diallo ay Aïssa Diagne ay Mbaye Gueye ay Mor ah, ay maam a ci jàmm gën ñooñu ñëpp ay jàmbaar na nga ñu woon ànd président Macky Sall depuis 2012 tey nañu gën bëgg président Macky Sall bu ñëw Louga dañuy mobiliser élection yi am lu ñu ci daju waaye ñii tey jii di wax mm. est-ce que non ils ont plus de mérite je pense pas donc dañu war a delloo ci seen xel à méditer merci monsieur Mbaye merci xam naa ni 45 minutes tuuti na. <laughs> wax li ma bëgg wax yëpp parce que message bi ma bëgg jàllale Sénégalais yi boo ma ko mënee may ci une mooy wax ne le Sénégal est aujourd'hui dans une excellente dynamique dafa am fu ñu jóge woon 2011 ci ay jafe-jafe ci ay situation mhm. te 2019 bu ñu defee bilan bi ci domaine bu jël Sénégal def na ay jéego yu sori nañu ànd ak président Sall pour lu des ci mandat bi accompagner ko mu relever les défis pour notre pays gëm naa ni loolu sursaut national sursaut patriotique la laaj moo tax ma ci woo asalaamaaleykum voilà merci à merci monsieur Kanbay conseiller spécial la présidence de la République coordinateur de des cadres donc de l'APR à Louga dans deuxième partie nous recevrons le socialiste Mame Bouna Massal député à l'Assemblée nationale mesdames et messieurs ne ratez pas le rendez-vous demain à partir de 19 h côté du Ciplaza pour le débat du 31 décembre juste après euh, donc huit journalistes face au président de la République Cheikh Diaby de la 2STV sera de du lot. À tout à l'heure pour la deuxième et dernière partie de votre magazine si vous êtes à table bon appétit sinon euh, passez de bons moments le temps qu'on se retrouve aux environs de 13 h minutes.